Moy dafa melni ni li ci ñeppam rek la ci am moy dañu ni khalifa general des mourides dana fi yabal dana fi yable julle si fi takusan euh yalla na ni euh bisba ci bisba ci 4h japp 4h et quart wala quatre heures vingt nangam la yëg yëf yi nga ko yegge ak bima ma ci jakka ci 35 minutes lay toll Ah, yàlla dogal ah, bi ñu demee ndax ginnaaw dañ ne xalif général moo moo woote taalibe Ceese boo waxtaan ak ñoom waxtaan woowu doo xam man waxtaan la moo tax da kuy ko fii taalibe rek wala ab jullit war ngaa dem fekke loola yàlla dogal na eh, biñ ma woowee eh, ci waxtu woowu ki ma woo sax da doon laaj sëñ Sambu sax Abdourahmane di ma damaa dégg ab xabaar ni dañoo woote ci jàkk man ko aman ah, de dégg dégguma ko waaye xaaral ma leer leerlu ci laa wooyee sëñ sa wàllu gajëk Euh, mënu ma am na ma woo Serigne Jibi Mbaye mënu ñu ngi ci jàkka ji ma woo Serigne Modou Ngom mun ma dégg na ko ma woo Ahmed Salim Nasiruddin jotuma ko gannaaw ak la ma woo jot ma euh, bi ma demee toog ni taalibe yëpp tu toogee euh, bi ñu déggee ni nag sëñ baa ngi waaj ñëw ñu jàpp ni que Serigne Saliou lu fa xew war nañoo bokk ci ñoo koy taxaw ndax sëriñ bi eh, monument la ci Thiès Serigne bi liggéeyam ci Thiès bët yi gis na ko nopp yi dégg na ko làmmiñ yi wax na ko ah, yàlla dogal nag euh, muy kilifa ak murit yi fii nekkal fii xalif général des mourides quatre-vingt ñun ñii wax ak yéen ci quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingt dégg fi sëriñ Abdou Lahad Yabale sëriñ Abdou Lahad Mbacke moo ni ko am nga sa mbokk mu la jege di soxna Ndeye Penda Jaxate di sama wajuru jigéen ñoo sëriñ bi bokkee ci Mbakol Thiès boole wuñu wax na ko ba tàyyi heure bu ñëwee di tudd samay daan man leen di bëgg a xamal ni maak yow fii boolewuñu kon ñu taxaw taxawaayu njaboot ci moom moom it mu taxaw taxawaayu kilifa ci eh, lu ñu mën ci jàppale ko def ko moom it lu mu mën ci taxaw def ñu ko eh, noonu lañu nekke ba lii tey jii ñu dégg ko bi sëñ Moustapha Lakram ñëwee nag ñu teeru ko moom ñu am ay ay ay diggante yu am solo mooy fële sama daare ji ci bayti am na ñoo ko fa sos àndante ko kilifa yi moom ba bayti dafa bëri ay taalibe ñoo xamante it kër Cheikh Mouhamadou Mourtada al mujahidul akbar ndax ku ko xam tamit xam ko Cheikh Mouhamadou Mourtada eh, kóllëre gu yàgg maag sëñ Moustapha Lakram yàlla da ko kon bu fi ñëwee at ni ma ah, yaa nga fi man ko maa ngi ci après ñu dem présenté ko eh, waxtaan ak sëriñ bi waxtaan ak njaboot gi daal di ñëw bi mu ñëwee <coughs> Baye Mour Dioum ubbil ko. ñu bëgg koo jox moom wax directement mu ne jottalil ma yow laa tax ma ko jottalil ma ah, mun ma jottalil ma waxaat ma ko ba muy ñaari yoon daa mel ni kon ndaw lu jógee ci xalifa général des mourides ñëw ba fii ci Thiès ñi eh, sama jëm ju xeebu ci dama bëgg kàddu yi nga jottalil ma ko kon loolu daa mel ni ndigal lay doon ci man te ab taalibe amul lu dul ndigal ndax yoon wi benn sëriñ laa ki dong Cheikhul Khadim rek ay sëriñ bi ku dul sëriñ Tuubaa ab dong ci biir dong yi nag am nay jëwriñ جوري نيوان تاي ما سير سير سيدي المختار سيرين سيرين منتخا بشير تي لولو آه، لا كو جوتالي خامني يعني ميساج با خوما ييغوما تينوما ندخ عرفان داي وخني يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يين ني ني گم گين ما بو خبار ديكي ليرول لينكو ndax amana xabaar dikk te du nekk xabaaru dëgg bu fekkente ni nag euh, maanaam réaction bi eh, def nga ko ak soxol bu ëllëgee bu dëgg feeñee kersa moo ci mujj ndax ñun buñ doon far fenn sëñ Saliou la ñuy faral waaye ñun ak euh, sunu Aliou ju gàtt eh, ñun amuñu appartement dañu farfarloo fu dëgg nekk rek la ñu nekk. fu yàlla yonte bi Cheikhul Khadim nekk rek fa lañ nekk nekkuñu feneen euh, duñ dañ di ko waxit nag ndax loolu lañu ñu gëm euh, kon message bi mag ñëpp a ko déggandoo xew-xew bi mag ñépp ko gisandoo message bi dafa mel ne gul message su sëriñ bi àggul coow la jug xeer yi jug yu bari jug ma jàpp ne loolu liggéeyu seytaane rek la ndax damaa jàpp ne euh, biir kër Cheikhul Khadim radiyallahu anhu jàmm rek a fi war a nekk ndax ñun ñëpp ay taalibe lañu euh, biir jullit yi tamit jàmm rekk a fi war a nekk ndax ñu ñëpp waaye nag li nga xamante ne xëy na dal na ma ci diggante bi mooy ñu ñëw sama kër attaqué ko dama jàpp ni. waaw moom euh, yi ñu fi mën a toj toj nañ ko lu fi mën a yàq yàq nañ ko waaw waaye loolu dama jàpp ni sama kaw la dal te man wax dëgg yàlla am na ci loo xamante ni ëpp na ëppante naa ko sama bopp. mooy man du ma fayantoo yàlla bindewu ma noonu ba ca desaatit xëy na ña ko def ñàkk xam rek la ma jàpp ni ma dogal leen gant jàpp ni liggéeyu seytaane rek la waaye ñun as góor dox ba bëccëg di wax ca kaw parce que ñun <coughs> dara tënkuñu fexe nañu ba libre waaw di dund ci suñu façon suñu mooy yu limité ñu nekk ci waaye nag li ñu yàlla xamal ñu koy wax fidèlement duñ ci xool kenn dëggug suñu borom rek la ñuy xool xooluñ ci keneen lu yàlla wax ñu wax ko lu mu waxul waxuñu ko loolu lancé boobu la ñu a nekk ci la ñu suñuy waajur yar ci la ñu suñu baay yar ci la ñu suñu kilifa Cheikh Mouhamadou Moussa al Mujahidul Akbar yar ci la ñu xalif général di murid yar ci la ñu Serigne Saliou Touré mi nàmpatal ndax Serigne Saliou Touré liggéeyam ci Thiès mooy fu féewaloo bu ñëwee mu taqaloo ñu am jafe-jafe bu ñëwee ñu juboo ñi nar a dem police ak tribunal bu ñu accès ci moom duñ fa dem loolu moo doon liggéeyam lu ci bari sama kanam la kon suñu kilifa googu nga xamante ne tey jii ñun ñëpp dañ ko war a sàmmale liggéeyam bi am na loo xam ne xaju ci ak lu xew ak lu mu mën a metti metti ak jafe-jafe bu mu mën a am mën nañ ko lijjantee neneen ci lu dul violence parce que li muy yàq moom lu muy defar te ay bokki neen lañu ay dëkki neen lañu tax Cees dafa xat ginnaaw ay bokki neen ay dëkki nen lañu nañ rafetal man nii ca bis ba quatre heures vingt cinq laa yëg ni woote bi am na te wallahi alazim xaw ma kan mooy ñëw waaye nag ka jóge ci sëriñ bi ni ma sama kàddu bi ma jóge ci sëriñ bi yaa ma ko jottalil kon digal damay daal dab te it wax naa ko ñëpp dégg sëriñ bi moo ni naa ko jottalil ay kàddoom kon foofu laa ca yem yee ca des nag damay jàpp ne njuumte la te it fitna baaxul ndax yàlla nee na wal fitnatu akbaru min al qatli ak wal fitnatu ashaddu min al qatli nañu moytu fitna ndax moo gën a garaaw rey nañu moytu fitna ndax moo gën a moo gën a mag lépp ci wàll ci ci moo gën a mag rey moo ëpp rey al fitnatu naimatun laana allahu man ayqazaha wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa waalamu anna allaha shadidul iqaab yàlla ne na ngeen moytu fitna ndax ay du yam ci bopp borom bari na ñu ci laal te seen yoon newu ci man mii de sama yoon newu ci waaw ndigal nag fu ma dabee rek dinaa ko fa jëfee incha allahu rabbi waaye it te xamal ñëpp it nag eh, xëy na njuumte rek la damay jàpp ne ñaari ay xol bu jëfee rek eh, réccu ci mujj waaye nañ jiital xel yi damay jiital xol yi ndax ñoo bokk lépp ñoo bokk dëkk bi bokk diine ji bokk bokk gi bokk Cheikhul Khadim radiyallahu anhu kon loolu laa ci wax ci mu jege ak mu sori man daal li ma ci doon mooy ab taalib laa bu dëkk Thiès bu ñu wootee taalib yi danaa ñëw luñ ma ci jëfloo ci ndigal ma def ko fu fu dëgg yam nag fa laay yam man fu dëgg yam du ma ko jékki du ma masalaa ci dëgg fu dëgg yam rek fa laay yam ko man foofu laa ci nekk waaw déwuma dikkuma waaw tey jii fii may wax ak yow bu ma Seex Mouhamadul Muntaxa ni ma jógal fii dem dëkk feneen ma def ko mun ma jógal mun ma bul génn sa kër kii li ma soxla yëpp dama ko yónnee ndax ñun ay taalibe lañu te li ñu fekk sunu baay sunu baay ci la fekk ay waajuram sunu maam ci yoon la juddoo waaw kon yaakaar naa ni ñun euh, yaakaar naa ni am na lu ci xam xamuñ ci lu bari nag waaye am na tuuti luñ ci kon ñuy ab ñuy wax ñëpp ñu ñëwaat ci jàmm ak dal ndax jàmm ak dal ci la lépp xaj guerre mondiale sax autour d'une table la jeexee kon nañuy waxtaan te lépp ñu teg ko ci ak jub teg ko ci lu leer ndax nit day leer. ci weer wet wet yëpp man nag foofu rek laa nekk du ma fa jógee mukk ñun daal ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu yàlla def jàmm ci réew yàlla bàyyi fi sunu kilifa yii sunu borom it sunu kilifa gii nekk Thiès sa liggéey liggéey boo xamante ni fu nekk wax naa ko fi ci àdduna xam-xam mag sëñ fu nekk wax ko fi ci àdduna bañ naa ko ba dama ko bind ndax bind dootul farati kon moo tax Euh, kilifa yi bi ñu waxee yàq géeg yu demee noonu man leen ci sama kaw la daal waaw sama kaw la dal ñun nag lu dal suñu kaw mën nañ mën ko muñ sëñ Tuubaa lu ne na te moo ñu gën rasulullahi lu ne daj na ko te moo gën ñëpp yàlla lu ne mu koy dégg te moo gën ñëpp waaw yooyu amul solo li am solo mooy fexe ba nekk ci jub rek nit ki na fexe ba digganteem ak boromam leer moo gën nga fex nga bëgg a fexe sa diggante nit ñi leer boo ko dee fexe sax da ngay lëntal fexeel ba sa diggante sa borom leer rek intéressé hmm. hmm. hmm. euh, ci. waaw fitna ji bi mu amee dund ni ko dundandi wu metti waaye lu metti sëriñ Cheikh Tidiane si mu baax mi day wax ni tuuma gor nattu jullit ab nattu ab jullit tuuma na gor as gor dañuy tuumaal yërëm naa keroog sëriñ bi fàtte naa sax sama bopp yërëm naa ko keroog ndax xam naa ki mu doon ak fi mu bàyyi ko kon ak lu mën a xew waroon nañ ko lijjanti leneen neneen lu fitna ndax fitna lu mu yàqul di ko defar kon li ma ci mën a wax ci gàttal mooy dundin gi daal dundin ko tiis la dunduñ ko ñu réccu la rawatina nag mu xewee sunu dëkk di cees ñu fekk fi baax suñuy wajur fekk fi baax euh, kon loolu bu fi xewee ba sëriñ bi euh, xalif général des mourides daati ni euh, tooñ ngeen Cheikh Moustapha tooñ ngeen ma tooñ ngeen Sëñ Tuubaa loolu rëy na ci Cees waay yëpp ñu ngi koy jéggulu ñu ngi koy jéggulu ñu ñu ñu ngi Sëriñ Tuubaa tooñ kooku waaw ñu koy ndax ak matadi rek la waaye nag du bëgg dug yéene waaw ndax damaa jàpp ni ñu may seqal ñoo ma gën ci lépp te ñoo ma gën bëgg sëriñ bi ci lépp waaye nag yaakaar naa ne eh, nit de juum eh, kon ñu ñaan suñu borom subhanahu taala juum juumte lii bañ a amaat eh, ndax njuumte lu mag la waaw diñ ko ndawal lu mag la ndax kilifa ko toll noonu ak niñ ko def ba sëriñ bi di ko waxal boppam naqari na murid yëpp nag naqari na jullit yëpp fu nekk nit mu ngi fay wooy ci àdduna ku nekk nga ñëw sama kër ba fa la may liggéey ca Thiès ak Ndakaaru ña ma fa xam ñëpp maanaam ku ma waroon a jaal si rek seet si nga ko su ma faatu woon ku ma waroon a jaal si seet seet si nga ma waaw loolu loolu am na su ma faatu woon ku ma waroon a jaal si gis naa la waaw ñi mënta ñëw téléphoné nañu am na jóge dëkk ak dëkk ngir ñëw seet si ma lii laa la ci mën a leeral <laughs>